alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb aju may tay ji la ci gën a fës diggante Siteu ak Diène Kaïré suñu laamu ñu xamal ne combat bëgg naa ko ndax dama waxoon ne Siteu poisaw ko ci mu wala supporters kenn kontaanul waaye ba na sama diggante ak yàgg nañ ko bëgg tamoon combat boobee bëgg naa ko suñu laamu ñu xamal ne diggante Diène Kaïré ak Siteu loolu combat bu a mën a nekk la combat neex la ndax booy xool ci palmarès ku ci nekk kii di Diène am na 18 victoire Siteu am onze victoire Siteu am quatre défaites Diène am trois défaites Diène am benn match nul Siteu am benn sans verdict suñu law mu ñu xamale combat bu neexee ngi noonu diggante Siteu ak Diène waaye Diène Kaïré mi xam ne misé rek ci Siteu bu amee keneen jël waaye digganteem ak Siteu dafa di amateur yi ñoo bëgg boobeeb combat ginnaaw loolu keneen

yu xëyee ngaar daajoo journalam bi di suñu làmb waaye bëri ci morom suñu làmb moom Boucar fan si clubam bi teg nañ mise bu am solo bu 1 million le 18 décembre fële nga bi ñu xamal e gaal gi la jëm ak mise bu am solo 3 millions la teg fa nga xam si ni mooy ca terrain gaal gi ginnaaw loolu keneen sibel bu écrit ndakaaru wala sibel bu écrit Fass ndakaaru suñu làmb ñu xamal ne dimanche bi lay def retour am ci làmb ginnaaw bi mu jógee ci écrit boobu nga xam ne ma ngi ko bokkoon xam si ni mooy ki moom suñu làmb ñu xamal ne moom Balla Gaye 2 Bombardier tey jii la ñuy def jàkkaarloo bu rëy fa nga xam si ni moo di arène nationale ba suñu làmb ñu xamal ne ki nga xam si ni mooy Gaston Mbengue moo fa woote bu 17h jotee jàkkaarloo bi dox diggante Balla Gaye ak Bombardier sur invitation ginnaaw loolu keneen suñu laamu ñu xamal ne Ama Baldé Modou Lô combat boobee état bu Sénégal moo war a gàddu sécurité ba waru koo seetaan ak promoteur bi rek waaye da ko war a gàddu ngir lee amoon ci diggante Siteu ak Papa Sow bañ a amaat ginnaaw loolu Fallou Ndiaye taxawal na combat bu neex diggante Dab Daan ak ki nga xam si nii moo di Mor Kankang suñu laamu ñu xamal ne affiche de feu la combat bu nar a neex incha allah ñoo ngay xaar date ba ñu annoncé ko mu nar a nekk combat bu neex ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje niki suba incha allah